C'est bon C'est bon C'est bon document. asalaamaaleykum euh, jërëjëf monsieur le président du groupe parlementaire honorable président Abdou Mbow euh, gannaaw bi mu nuyoo sama honorable collègue yi di nuyu journaliste yi nga xam ne di rafetlu seen teewaay ndax ñoom dañuy informer opinion nationale ak internationale sur li nga xam ne moo xew ci assemblée nationale bi. sunu collègue yi nga xam ne nag ñoo nekk ci groupe parlementaire Yewwi dañu def sol mbubu boo xam ne du seen mbubu dañoo sol mbubu premier ministre taxaw def point de presse daal di violer mooy li nga xam ne le principe de la séparation des pouvoirs son boobu exécutif taxaw di waxal exécutif te ñoom législatif lañu tey ñu xam ne déclaration de politique générale ci constitution sénégalaise en son article cinquante cinq dafa clair dafa wax ne képp koo xam ne premier ministre du Sénégal nga da war a def li ñuy wooyee déclaration politique général parce que déclaration boobu noonu muy jàkkaarloo boobu ak face à ak peuple bi ndax boo ne peuple kat mooy ñu député yi dafay tax ki nga xam ne mooy jëwriñu gouvernement bi dina ñëw waxtaan ak député yi ci li nga xam ne mooy vision bu dee vision am na li nga xam ne mooy ambition bu dee ambition am nañu ko ak li nga xam ne mooy les grandes orientations ndax tey sax. mën naa ne mu jëlee exemple BRT ku koy jël di nga xam fan nga jëm di nga xam tamit ban yoon la BRT bi di am te loolu mu ne ko assimiler ak ki nga xam ne mooy premier ministre rôle tey jii ñu jàpp ne li waa Yewwi yi def les députés de Yewwi lu ñuy ñaawlu la ndax ñoom dañuy invité dañuy woo ki nga xam ne mooy seen premier ministre di ñiitu gouvernement bi mooy mu daw ndax li xew fii Sénégal mosu fee xew ndax benn premier ministre mosul daw jàkkaarloo ak ay député pour wax leen fi nga xam ne foofu la réew mi li nga xam ne mooy programme yi gouvernement ñu jàpp ne tey li ñuy wax ci règlement intérieur bi nee nañ règlement intérieur bi dafa faux tey bu ñu fàtte ne règlement intérieur boobu noonu ñi di député Yewwi yi moom la ki nga xam ne mooy l'ex premier ministre Amadou Ba ñëwoon def ci déclaration politique général au mois de décembre moom lañu ñu également sukkandiku woon pour def li nga xam ne mooy motion de censure bu ñu déposé woon bu ñu fàtte également tamit que la constitution moo nekk ci kaw règlement intérieur mooy constitution moo mag. moo sut li ñuy wooyee règlement intérieur de l'Assemblée nationale wax nañ ko tamit ñu naan délai bi amul waaye dañuy fàttali rek jurisprudence boo xam ne yàggut ndax le conseil constitutionnel bu yàggul ci élection présidentielle yi bi coow amee meilleur délai bref délai dañu jàpp que ne que délai raisonnable mooy le meilleur délai kon le premier ministre waxoon na ci quatre-vingt-dix yi mënoo def li nga xam ne mooy déclaration de politique générale maintenant bu ñu fàtte également que ñi nga xam ne tey ñooy député Yewwi yi di suñuy collègue waroon toogal askanu Sénégal mais ñu préféré toogal seen premier ministre moo waral ñu jàpp ne ñoom ay député Ousmane Sonko lañu du ñu député askanu Sénégal ndax mbubbu premier ministre lañu solo taxawal ko. di ko wax ne kon na bañ def li nga xam ne mooy déclaration bi te bu ñu fàttali le 5 juin bii passé kii di premier ministre Ousmane Sonko moo wax ne mu ngi préparé déclaration politique général bi ci ni mu gën a gaawee ñu jàkkaarloog askan mu Sénégal rawatina jaar ci député yi député Sonko yi muy waa Yewwi député Yewwi yi dañu jàpp ne avant ñu seen point de presse bi waxtaan ñu woon ak. ki nga xam ne tey moo leen yónni te bi mu génnee wax xam nañ fan la commande bu jógee kon commander lañu amoon ñëw wax commande boobu noonu ki ñu ko doon defal tey moo génn ñëwaat ci léegi nag sénégalais yi ñoom ñooy témoin yi gis nañu ne boobu ba tey ñu député Benno Bokk Yaakaar ñu ngi taxawee taxawu républicain mm-hmm. ñu ngi taxaw pour liggéey bi wëy fonctionnement bi wëy ci ni mu gën a yembee ndax ñun kat dañoo jox cër loolu askanu Sénégal ñu jàppoon ne ñoom it jox nañ cër askanu Sénégal waaye manqué respect askanu cër Sénégal mépriser ñàkk nawloo askanu Sénégal moo waral tey sortie bii nga xam ne tey dégg nañ ko léegi premier ministre def ko mooy que ñun ñi nga xam ne tey askan moo ñu fi teg bu ñu wegul rek mooy wegul egalement peuple sénégalais bi. ñu rappeler également au premier ministre son obligation mooy mu respecter li nga xam ne moom la ko constitution bi jox mooy mu ñëw jàkkaarloog député yi wax ñu fan la jëm ban yoon lañ koy awalee si askanu Séné pour askanu tey jii dañu jàpp ne le premier ministre dafa am loo xam ne moom ñemewu ko moo la confrontation te du la première fois nag ndax yàgg na ñëw assemblée nationale wax la muy wax wane ginnaaw dem xëy na jaar-jaar pour politique am way na na am na courage waaye wan na wane nañu également que ne courage am bi yemul ci yeggul ci confrontation courage bi mu am yeggul ci contrat débat contradictoire te loolu yaakaar nañu ne moo waral mi dafay oote ay ay sénégalais ay universitaires ay société civile waxtaan ak ñoom dem parce que foofu da am confrontation foofu da am contradiction léegi nag ñun dañuy wax ki nga xam ne mooy le président de l' assemblée nationale muy Amadou Mame Diop que nu mu gën a gaawee na indi leeral ci situation bi nga xam ne moo am moom ak la pouvoir exécutif afin que ñu mën a def dans nu mu gën a gaawee li nga xam ne mooy déclaration de politique générale ñu wax tamit que ne daañu utiliser bépp jumtukaay bu légal bu constitutionnel ba nga xam ne tey jii li nga xam ne moom la ñu oo muy défiance ñu fekk ko ci défiance boobu noonu ñu wax tamit que ne fi mu nekk nii le président du groupe parlementaire Abdou Mbow junj na ko dañoo enclenché benn processus liggéey ci loo xam ne tey article li nga xam ne moo doon tax kii di président de la république mën a dissoudre assemblée nationale du amati ñu liggéey tamit ba nga xam ne tey li nga xam ne ci motion de censure tamit du amati kon loolu la ñuy liggéey fi mu nekk nii ba nga xam ne assemblée bii. ñun groupe Benno Bokk Yaakaar bi groupe majoritaire ñu ciy liggéey ut pop indi proposition de loi boo xam ne tey président de la république du mën a ti naxasaayal assemblée bi parce que nag li nga gis ñi di ñii di doxalee doxalu woyu la ñu indi te yaakaar naa doxayu wo dox dox taxawaayu woyu bu ko nit indee ci Sénégal gii dina jaaxal waa Sénégal kon sénégalais yi ñuy seetaan xam nañ bu baax a baax a baax que ñun groupe Benno Bokk Yaakaar ñu ngi ci position républicaine bi nga xam ne moom la amoon mais lépp lu ñu yoon may daañu si taxaw liggéey ko ba mu sotti incha allah rabbi voilà donc euh, merci madame la présidente di leen sant yéen